À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige

dama ne nag bi ma duggee ci euh, euh, euh, exposition Touba ci kanam ba léegi su may ibbi nag dama naan Diès 144 Diès ne 621 Diès pour gars yi nga xam ne dañoo yor seen Orange Money yi a ah, tey tayee la jóg dem wari ji Touba ci kanam ñoo xam ne plateforme bi mi ngi ci internet bi da ngay dugg foofu rek boo yore sa 1000 francs dugal boo yore sa 2000 loo yor waaye nag damaa jàkkaarloo coordinateur Serigne Modou Diouf nekk Italie di ordinateur bi nga xam ne moo yor mbooleem li nga xam ne moo aju ci wàllu communication ci diaspora bi di ko am am solo ci liggéey bi ah, ma jàkkaarloo ak moom fekkante moom fii ci exposition bi ma bëgg koo jox kàddu mu am ay message yu mu jàllale tuuti rek ci waa diaspora bi gën leen a woo ci liggéey bi xamal leen liggéey bi mu ngi dox te dafay lu am am solo ci yoonu murit sëñ Modou Diouf yow kañ nga bi ci liggéey bi di euh, Touba. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu taalibe yi mbokk jullit yi ñu ngi leen di di leen ziare di leen balaax di leen balwaax di la jaajëfal bu baax euh, jëwriñ euh, ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def ci communication surtout ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu Touba ca kanam di leen ndokkeel bu baax ci bis bu tedd bi ak liggéey bu tedd bi nga xam ne ci lañ nekk ci jamono ji muy màggalu Touba ci ndokkeel waa diaspora bi yëpp rek rawatina ñi nga xam ne ñu ngi euh, nekk membre yi Touba ca kanam yi ci diaspora yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo jiite su commission bopp muy communication de la diaspora wala commission bi nga xam ne mooy commission relation extérieure muy sëñ Abo Bousso ak euh, sëñ Modou Seck ak sëñ Moustapha Mbacké di leen sant di leen gërëm bu baax a baax naa pour ñëw ci sa laaj bi nga laaj rek euh, ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey sëñ Touba bi di liggéeyu Touba ca kanam yàlla dogal na ñun bi mu tàbbee ci Europe gi rek Italie mën naa ne ci la ñu tàbbi comme ni ko murid yëpp yëgee di ci sant sëñ Touba nag biñ ko yëgee rek wuyu si booba lañ ci tàbbi ca diwaanu Italie nekk fa ci diwaan bu ñuy wax Touba Bergamo macha allah Touba Bergamo seen liggéey ci diaspora bi maanaam euh, da ngeen a am ay ay coordinateurs yoo xam ne da ngeen jox ay bloc ñuy dugg ci biir nit ñi wala dangeen am ay plateforme yoo xam ne yu yu yu électronique yu ci nank ngeen di fexe bay dajale addiyee taalibe ndax ñëpp xam nañ ne diaspora bi ñu ama ama am solo lañ ci liggéey bi di Touba ci kanam. waaw euh, jëwriñ euh, comme ni nga ko xamee ci Touba ca kanam tubaa ca kanam lu organisé wu la. ni mu organisé woo fii ci Sénégal noonu la organisé woo tam ci diaspora bi. ndax dañoo am commission bu ñuy wax communica commission relation extérieure bi nga xam ne moom laa doon wax sànq ku mel ni sëñ Abou Bousso moo ko jiite ak euh, sëñ Moustapha Mbacké ak euh, sëñ Modou Seck commission boobu sous commission boobu itam dafa am ay sous commission yoo xamante ni loo xamante ni lépp lu liggéey bi laaj ci ni muy doxee fii Sénégal rek ñu organiser woo noonu ndax ci diaspora bi ñu ngi ci 62 pays yoo xam 62 pays yoo xamante ni euh, commission boobu. Euh, moo leen composé muy ay dëkk yoo xamante ni mën naa ne quatre continents yëpp la muy Europe Asie Afrique ak euh, États-Unis réew euh, continent bu nekk tam am na benn euh, coordinateur général muy responsable continent bu fa nekk boo xam ne moom mooy responsable continent bi muy ku bu ne ñooy Europe ku mel ni baay Serigne Gueye boo demee Afrique. ku mel ni Serigne Khadim Thian boo demee États-Unis sëñ Soy bu Seck boo demee Australie euh, ku mel ni Amady Watt euh, yooyu nag dañoo organiser wu en même temps réew mu nekk am na ab coordonnateur général wala fu mel ni Italie ga ma nekk am benn commission bu ñuy wax euh, commission boo xam moo coordonné liggéey bi di coordination bi bàyyi Serigne Diop ak. bàyyi Abdourahmane Diop ak sëñ Xaas Diop jiite ko di leen nuyu de passage noonu la ñu organisé nga xam ne euh, sous commission yooyu boo ñëwee ci communication am nañ communi sous commission communication am nañ sous commission massification noonu lañ ko toppee ci domaine yëpp ba nga xam ne diaspora bi organisé wu na ba euh, commission boobu ñuy wax relation extérieure domaine boo fi gis rek am na sous commission boo xam moom lañ ko dénk liggéey bi mu yore ko pour coordonner diaspora bi ba nga xam ne liggéey bi dañ koy def à temps di liggéey nag ci virtuel comme ni nga ko xamee Touba ca kanam ci ay euh, ay ay euh, groupe WhatsApp yi nga xam ne euh, commission bopp am nañ ko vraiment ci noonu la ñuy liggéeyee comme ni ñu xamee Touba ca kanam. macha allah macha allah macha allah kon yaakaar naa ko déglu sëñ Modou Diouf xam naa ne temps bi sax dafa xaw xat waaye ci ni mu développé leeral na ne diaspora bi ci ay commission la ñu ko tënk te it ne ci diaspora bi ñaareel ci wàllu organisation moom xaw nañ cee raw bu baax a baax a baax sax ñi nga xam ne ñoo féete fii ci réew mi ndax noonu noonu la àddina tëddee. waaye sëñ Modou Diouf euh, Touba ca kanam ambition yi ñu yor euh, yéen boo leen dee wax ak murid yi ana yan discours ngeen di tenir pour mën a convaincre murid yi pour ñu ñëw wuy si mën a jël seen addiya yi di ko dugal ci seen système bii ngeen génne mooy Touba ci kanam ana yan ban xeetu soññee ngeen leen di mën a soññ ba tax ñuy ñuy taxaw taxawaay wi ñuy taxaw. waaw jëwriñ xam nga Touba ca kanam day produit boo xamee ne nii macha allah dafa neex a jaay. ndax tubaa ca kanam dafa ñëw ci temps bi nga xam ne li ñu naan sëriñ Touba jamono ju nekk euh, ni ko kilifa gu baax di wax ne liggéey bi Serigne Touba daa mel ni sëru rabal jamono ju nekk rek ak la muy indi nga xam ne bu solution waree am rek moom moo koy indi du benn murit boo xamee ni jàpp nga ne sa xalaat wala sa xam-xam wala sa compétence may na la ngay def lu mel nii daa fekk bëgg Serigne Touba la mooy def bu jamono jotee rek. mu jaarale mu tàggat ay doomu aadama defal leen tawféex jaarale ci ñoom mbir moo xamante nii mbiram dafay defaroo ñu jàpp ne dara lañ ci duñ ci dara kon mbirum Sëñ Tuubaa moo demee noonu tubaa ca kanam fi mu ñëwee surtout waa diaspora bi képp koo xamee ñëw nga fii tey ci dëkk bi di dund ci diaspora bi murit bu nekk foo ma di nekk ci àdduna lu baax loo gis wala lu rafet lu nekk Touba nga ko yéene te bu ma ñëwee fii ci dëkk bi lu ma fi gis lu demewul noonu du ma neex loo fi gis itam en tant que murit lu demee noona pour woo la ca day yomb Touba ca kanam dafa ñëw ci solution bopp boo ñëwee ci domaines yi nga gis nga exposé nañ ko fii muy ci quatre domaines phares yi ngay wax sept domaines phares yi ñuy wax lépp Touba ca kanam indi na ci solution kon loolu euh, day attiré murit yi surtout ñi nekk ci diaspora bi di dund organisation boo xamante ni gis nañu ne àdduna fi mu toll fii la nekk Touba ca kanam ñëwee foofa moo tax Touba ca kanam foo dem ci àdduna bi maanaam pour soññee day yomb ndax li ñuy joxe macha allah néew na ñu ngi koy def fu ñu teg seen bët. réalisation yi réalisation yi tam ñu ngi koy def xam ñoo massifier seen bopp ñoo publier seen bopp. kon daal yéen dafa mel ne da ngeen a fekkoon euh, nit ñi problème biñ gënoon a am mooy seen alal ji ak seen addiya yi ñu bëggoon a jox Sëñ Tuubaa te amuñ fu ñu ko jaarale yéen da ngeen a dikk ci euh, jàppandal leen loolu indi leen solution. macha waaw loolu boo gisee diaspora bi nekk rek ci yoonu Mouride diaspora bi apport bu bu fort la ne nekk Touba mais bi Touba ca kanam ñëwee dama lay jox misaal rek lu mel ni màggal gi nga xam ne ci la ñu nekk kenn ku nekk gis na Touba ca kanam ni mu indee solution population bi muy ñi nekk ci diaspora bi kenn ku nekk ngi woote ndax yaakaar ni ko ku tedd ki waxee sëñ Muntaxa yaakaar ji ñu fi teg noonu la ci Mouride di tege seen yaakaar jàpp nañ ne li commune waroon def wala li gouvernement mënoon def Touba ca kanam moo ko war a def moo tax Touba ca kanam day door ñuy wax muriti ci diaspora bi bul jàpp ne Touba ca kanam ñun ñëpp ñu ci dugal euh, mooy dañoo toog gis ko muy projet sëriñ Touba ñu dem fa mu nekk jàpp ci te liggéey bi ñaar la ginnaaw boo defee sa ñax nga fexe ba gox bi nga nekk nga nga taxawal ko fa te foo nekk ci gox boo nekk ci àdduna soo bëggee nekk collecteur wala nga mboo ko nekk coordonnateur Touba ca kanam moom ubbil na lay buntam du liggéeyu Touba ca kanam du ab daayira lu daayira boo xamee ne dafa ñëw pour concurrence yeneen daayira yi non Touba ca kanam dafa ñëw pour dajale li nga xam ne dafa meloon lu dispersé wu mu ay daayira ay organisation yoo xamante ni dañoo tasoon ñu boole doole yooyu pour def macha allah rassembleur voilà rassembleur voilà macha allah sëñ Modou Diouf yaakaar naa waxtaan wi am na solo lool bu néewtoon ak xatu waxtu wi yaakaar naa dañ koy topp mu gën a sës waaye nag Tawfekh Production mu ngi ànd ak yow